Assalamualaikum chers internautes King Production amna ñu mbékté ak contentement man jaar bu mu Serigne Saliw alliance Nafisatu Mbay Nariya Aissatu Mbay ah, Mbay Moussa monsieur Mbassen Kumba Seen Goli Fatima Jojo borom ngaay Birama ndata Yalla borom ñetti Birama yi di la wax ni nga dund rek ba say may di baawaan li waral tay ah, waxtaan wi ak ah, wa King Production équipe bi yëpp nekk sama ginnaaw ku ci mel ni euh, Fadel chef cadreur Alassane mi nga xam ne mooy assistant ak ki nga xam ne moom mooy euh, Cisco ménagère King Prod ak euh, yaa Ana di nuyu Cheikh King Sarr borom Madison di nuyu Serigne kan borom Madison ñoom ñi nga xam ne lay àndal ci liggéey bi saa su nekk King Pro ñu nekk samay collaborateur yoo xam ni macha allah ay ndaanaan la ñu ah tardé loo leen ma benn yoon ci liggéey bi. di jaajëfal Delfa Art saa su nek rek macha allah di wax ni yalla yalla guddal sa fan sa yi ci re xale nga waye am nga jom rew mi do nangou kula fi ëpp jom xana kula fi magay am rek tubarikalla di nuyuwaat mbokk internet yi di wax ni li tay sama teewaay gëjoon na genn depuis 3 mois ci ginnaw que bientôt dañuy jeexal xalaas inshallah dañuy dem ci benen série di ñaan yalla nak xamna ni du len neex. mais nag xalaas jot na un an ñu arrêté ko parce que janvier la commencé woon le 9 janvier ba léegi nii ba ñu ngi duggaat euh, janvier daanaka décembre janvier un an ci série doy na te boobu ba léegi mosoo leen cee doyal parce que li ko waral mooy ay faits divers la chaque épisode ak ci li muy wax waaye jot nañu wan tamit gars yi ni mën nañu leneen ba tax ni bindaat naa beneen série ba fas yéene nañ cee ànd ak ay ndaanaan bëgg it gars yi gën a gën a gën a yeewu rek ci àddina bi ndax li may wax saa su nekk rek seen mbégte mooy suñu bànneex mais dafa am benn affaire boo xam ne dafa am euh, mooy bi abone yi di gën a ndaw dafa am épisode yoo xam ne dawoon na te ñi ñëw abonné waat seetaan nañ ko léegi dama yokkaat chaîne yi def ko ay format vingt six minutes su ko defee ñi nga xam ne seetaan nañu woon épisode yooyu day mën a beesaat ci ñoom ñu seetaan ko ñi nga xam ne tamit seetaanoon nañ ko tamit seen yi yokkuwaat ci ñoom dañ koy mën a seetaanaat saa su nekk day beesaat ci ñoom léegi ñun saa su nekk bala ñoo def dara rek kon yéen la ñu am damay ñëw toog waxtaan ak yéen ah leeral parce que yéen a ma fi ba li may wax rek heure bu ngeen yëkkatee seen loxo ni lii ngeen bëgg rek saa su nekk ci loolu lay ànd ak yéen mbokk internetu King Production yi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen kontaane ndax man rek nekkuma fi ci biir série bi mais saa su ne maa ngi gis na fi mbay dama laa bëgg na fi mbay dama laa bëgg kontaan naa mais mënuma tontu commentaire yëpp di nuyu nag équipe King ñëpp rawatina internet yi gis naa abonné yi gis naa commentaire yi gis naa partage yi sax ñu ngeen koy defee bu baax mais du ma tëj mukk te nuyuwuma ñaari nit ñoo xam ni ah ka njëkkee rek laay wax te Serigne Saliou boole ma ak moom mooy Mouhamed ñang mu Serigne Saliou jàmbaari Serigne saaliw ji ñang maa ngi lay jaajëfal bu baax ndax mbokkuñu rek man ak yow nga teg ma nële yaa ngi may nemmeeku yaa ngi may xool yaa ngi may jiital ci say mbir yal na yàlla guddal sa fan yàlla wéral sa cër nga boole ma ak Basirou Kane ak taalibi Serigne Saliou bi taalibi naa Cuun moom seex Béthio mu daggal ma terrain Faraglose man ak tontoo Tafa bu Poté Marichou sama waa jooju Basirou ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di la kontaane ndax lii nga ma defal defal ko tontoo Tafa dama naa artiste Sénégal gépp nga ko defal kapp la jéeri sama pël bi borom Tiwaawan pël yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral sa cër di gërëmaat nag ñëpp ñëpp ñëpp Cisco di ko jaajëfalaat bu baax a baax Alassane voilà gis nañu liggéey bi équipe King ñu bëri dañuy jàpp ni King ñu bari ñoo nekk ci ginnaaw alors que ñu ndaw a ndaw ndaw ñoo fi nekk di liggéey liggéey boobu yëpp kon ñi ngi jaajëfal di ziar sunu yaay yaa mbay nga xam ne mooy togg chaque jour di nuyu yaa mbay mu mag ak toute la famille Badara Mbay Kaba famille cinq cinq famille yëmmu góor ndax man fi ma bokk dafa bari famille yaali Kumba Fall Ndiaye gawli mi des gàddaay ma siin ma Batoor Ndiaye famille Sadio Ndiaye sama papa ak ëmma seen Samba Xayen fan ma Ndiaye xarum law be nde ndeene Demba Ngom ak Demba Ngóor di la ñaanal sa combat bi nga jëm yàlla na la ci yàlla may ndam sama papa ji peace and love yàlla na leen yàlla defal jàmm ngeen baal ma nag ci loolu noonu ndax ëmma seen sama deret la kon yoon la ma ñaanal ko ñàkkul ñuy bégee ñeneen te bégewuñu ëmma seen te doon samay fans mais ngeen baal ma lool rek ndax mbokk moo foor ay ci di jéggaluwaat bu baax